seen site bu mag bi di Allo Dakar TV international moo dellu siwaat waat leen amal émission bu bees tàq émission bu ñu tuddee Jumaa Mubarak ñu koy def ajjuma bu jot ana émission bi nan lay tëdd nag mooy aljuma bu jot daanu dem ci jenn jumaa ci réew mi wala li ko wër ba bitim réew Allo Dakar dina ànd ak ak ki nga xam ni moo koy présenté muy Assane Gawlo ñu dem benn jumaa jël li nga xam ne mooy julli jumaa ja daañu jël imam bi daañu jël julli gi daañu jël bayaan bi daañu jël li nga xam ne mooy xutba bi suñu noppee nag danañu dajeek ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu jumaa ji waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy nga xam ne mooy bëgg-bëggu jumaa ji ak li ci aajo yëpp suñu noppee nag incha allah tegal leen ko ci seen allo Dakar TV international bi ajjuma bu nekk lañ koy def ki leen koy defal nag mooy kan Assane Gawlo Mbuub soppey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu leen di jox rendez-vous aljuma jërë ngeen jëf